Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance de renouvelée. Hein. Merci de vous des like, merci de vous des abonnés, merci également gars de baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé, hein. chaque fois de partager avec l'information, une box sénégalaise, fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal. Hein. Diaspora avec ñep ñi ngi leen di également qui est également ci l'hôpital ci sécurité de février. yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ngeen wér ak jàmm ñi nekk ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak gii ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom de leen fa Sénégal. leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen laajane fi daw gars Gaël te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité en

ak Barça ay trophée gagné naa coupe du monde moma ma mais téwul ba légui dama bëgg gagné wat yenen trophée loolu la daal di junj waxul nak ndax day jóge Paris Saint-Germain wala du fa daal di jóge même bu fekkee né tout porte à croire que né peut-être peut-être mu daal di fay jóge Dimitri Payet nak mom gars yi gannaaw bi nga xamé né ah kii di yéni i Cahuzac la mbéjoon <laughs> ah ñoom joueur lance bi mom nak fi ne gars yi neen met dal moy nek ci ndoddam jëm sax si ay 4 ah ñeent ba juróomi match yo xamné ne du ko daal di football ki nak également di Robert Lewandowski et Lewandowski mom naa actuellement moo euh, ñu bëri nak bëgg nañ wa Dortmund jël li nga xam moy donc Bundesliga bi mais mon daal gëm na ni wa Bayern ñoko jël et mi ngi leen di ñaanal ñoom ñu daal di koy eh, jël ki nga xam ne jël championnat mais fim mu ne nii dafa bëgg a ci Premier League moy Idrissa Gana Gueye ak Everton tay nag gars yi ah équipe bi ñëpp ragal muy Brighton le ñu daal di écraser écrabouiller gars yi ci première mi-temps bi rek lañu ñu daal di wane sen euh, bopp ah. donc le milieu de terrain de Everton qui a été aujourd'hui exceptionnel qui dit Idrissa Gana Gueye toujours fidèle à lui lui-même gaynde bi non macha allah Gana noo Gana laf cat gànn laf cat ni ko gisé ni nak boko gisé gisee ngeen dox ni nga xam ne waa rek le man mais gaynde ci bi terrain respect à Idrissa Gana Gueye Idi Gueye et que dire de Moussa Niakhaté gay yi Niakhaté depuis que gars delu dellu si ne mi ngi enchaîné match mais il fait des matchs exceptionnels ñomi tay tey Nottingham Forest ah ñu bu ñoom Moussa Niakhaté ak bu ñom Cheikh Kouyaté tay il fallait que ñu dóor parce que ñom fi ne nii maintien bi lañuy ñuy wut moo tamit ils se sont euh, voilà ils se sont dépassés surpassés tay pour am victoire yéen naa la ñu toog ah man yéen naa la club sénégalais yépp yi nekk ci prime League daal di xëccoo maintien bi ñu daal di euh, toog hein, de ca prime euh, league muy donc Nottingham Forest également Everton à El Tactico euh, Sénégal match bi ñuy wax moom kii di Maroc en tout cas gars yi ngi koy togg. ñu ngi koy j'aimerais bien nag voir duel El Tactico Aliou Cissé Bounama Rasta ak ki nga xam ne nag donc kii di Walid Regragui ñu xool nag gars yi technicien yi kan moo mën. kan moom mën da si am solo man nee naa match yooyu du pour non contre kii wala leen mais match yooyu mooy match yi nga xam day tax ñu xam ku nekk sa doole fu mu toll ñu nat suñu bop fu ñu toll coupe d'Afrique bi mais dina tax Sénégal xam ci lu bari euh, Maroc aussi xam ci lu bari mais en même temps suñu gaynde hein, ñom Amara Diouf ñu len di wax bonne chance pour cette match ñom ak Afrique du Sud les Bafana Bafana contre les Lions du Sénégal ñu len di ñaanal boy jamm et aussi on sait que aujourd'hui donc leur entraîneur également nek ko xamné c'est un fin technicien quelqu'un de très humble ñu len di ñaanal jamm mais boy di len wax dañ lek ba sour da leen naan ma maa ne bàyyi leen ni. dañ di ci jéem a ak WhatsApp beeg Biden bàyyi une ko ngeen ce match bi dañu bëgg coupe du monde après nak ñu dem étape par étape bu pression on compte sur vous ki nga également Kolo Bayern Munich ba mi accéléré ci des bi ah. Ben moy grandissime favori bi ñi nga nak moy donc 30 Francfort fort ñom nak fini duñ leen may dara minimum minimum diko dugg ci 100 yi 90 vingt jëm kaw ki nak di également gay hein, donc Pedro Almeida du journaliste comme Fabrizio Romano bu nek Portugal mom nee selon lui hein ki nga xam moy mooy Todd Bowley ak wa Bayern dajé nañ waxtaan hein, waxtaan bo xamné dafa jëm ci li di xol situation Sadio Kaysa magnifique Mané et que mom Pedro Almeida nee na donc le Chelsea moy le grandissime favori pour recruter Sadio Mané et comme je le dis encore Pedro Almeida moko wax nek journaliste bo xamné comme Fabrizio Romano la day ay informations en exclusivité motax ñu jox leen ko en tout cas fofu la dal mom dal rumeur bobu lay lay dawal actuellement nee selon lui ñaan ñi dajé nañ muy donc dirigeant yu Chelsea ak également Ben, parce que temps Chelsea demoon na fi donc guys c'était les informations que je voulais vous donner wéy leen di la, wéy leen di abonné on se retrouve tout de suite sur Babo Show wax les grands les cinq grands exploits faits par des pays africains yi